Sénégal asalaamaaleykum àdduna ginnaaw bi sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi siyaare yëpp waaw ba tey ñu ànd ak waa El Vision Média nee na ñu toog ki nga xamante ni du ma ko du ma ko présenté ñëpp xam nañ ko à travers le monde ñëpp a ko ràññee ñëpp a ko xam waaw macha allah ñu naan ko Soumboulou Bathily Seydou Zozo waaw ñu maa maa maa maa ngi koy bëgg ba baax di la siyaar di defal lu baax na di toog ànd ak yow toogaay bi Soumboulou maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum. Ah, xam naa sax du ma laaj wala teewaay fii parce que xam naa sa diggante ak sëñ bi damay seetaan démb ah, yéen sax naanaan ma la xëyee ma leeral la su ma xëyee suba dama lay gis bak sëñ Touba kon Soumboulou yow xam naa ne ci foo bi ku gis ni nga def nii xam ne ku sëñ Mbacke Diop nga léegi su ma nga leeral ma sa diggante ak sëñ Mbacke Diop loo may wax firnde baa ngi rek xëy suba teel xewam daal di koy ñëwal fa jaar teel ginnaaw parce que sëñ na nit koo xamante ne ci man moom mooy wax ci ñu boole ay at yi at mooy ànd ne loolu dëgg fa yàlla di nit ku baax vraiment ko fay. dama ko doomam bi aw bépp coono ba mu ci àddina ci barke nit ku baax la. waaw comme ni mu ko waxee rek jamono ji dafa nekk jamono bu jamono boo xam ndax bu nga génne ko rek lu lu lu yéeme la lu lu garaaw ngay daj pour mu génn tey ñu ñëwoon si ndàkk ci fajar gi nii waaw ba bi nga ñëw tàggu Soso waaw fàq naa ko. ba xale bi am na kooku dégg balaa Cheikh daal di ko jël. kaane naa ko kaane naa ko ba mu leer ba doog a ñëw. waaw kon waaw ñu ko defee defal lu baax ndeysaan di la ñaan yàlla defal ñu leen souhaité bonne continuation yàlla na yàlla defal jàmm laa xam ne nga bëgg sa carrière yàlla na la sëñ bi taxaw barke Seexul Xaddim li yëpp ndorte la rek li ci kanam mi ngi sa kanam waaw yaa waaw li naan doomu ñay kenn du ko ñaanal rëy da ko ñaanal gudd fan rek macha allah yàgg nañ laa suivre li li bettuñu jàmm rek nga am waaw toogaloon simbalu doon saa mag ju baax waaw sama rek nekkoon na ci moom ilimaan doon ko ñawal ndeysaan bu doon bu baax kon suba ñu la jaajëfal baax baax sa xarit bi sa xarit bi tuuti rek nuyu ko